sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 nuuru daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala bu nungu ñu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te di jël nuyoo boobu ak ziyaar bi di ko teg ci loxol kilifa gi a Cheikh Abdoul Ahad mu jottali ñu ko mboolem mbokk yi nu bokkal liggéey bi muy góor ñi ak jigéen ñi di ñaan yàlla subhaanahu eh, yàggal ko ci suñu kanam bu baax a baax ba lim yéene liggéeyal islaam mu man ko liggéey te nu ànd koog moom bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa kon xam naa fatwa bi tey muy tontu laaj bi rek dañuy ñëw ci laaj yi nga xam ne moo fi jot a ñëw te jóge ci mbokk mi muy al ustaas sëriñ Alioune Badara Njaay mbalm bi ñu ngi koy ziar di ko ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaayam eggaleel ko ay yéneem ci liggéeyal islaam bi jaay seydina muhammad sallallahu wa sallama kon mbokk mi sëriñ Alioune Badara Njaay mbal bi dafay laaj daal lu jëm ci wàllu mbokkum jullit mu fi jóge taxawaay biñ ko war a taxawu ci wàllu uh, waajal ko ak jullee ko maanaam muy laaj rek nan lañuy jullee am néew ak bu dee ni dañoo doon ñaar mu doon góor ak jigéen uh, nan lañ leen di def dañ leen di boole jullee jullee leen wala dañuy leen di xàjjale ku ne ñu beral la sa jullit bopp waaw foofu wàllu jullee googu muy bu jullit bi su fi jógee julli googu ñu koy jullee eh, dañu ne fardu kifaayatin la fardu kifaayatin nag mooy farata joo xam ne ji yàlla da ko teg mboolem jullit ñépp nag nga xam ne bu ko ñenn ñi defee wala kenn def ko ci jullit ñi rek maanaam defaale ko ñépp yool ba ca yàlla diggee ak xibaar mu defal ko jullit yëpp waaye bu ñëpp bàyyee loolu muy farata jooju bañ koo def maanaam bu ko jullit ñëpp bàyyee nag euh, dañ cay amee bàkkaar jullit néew gi ca la bokk euh, bu ko defee euh, muy laaj bu dee góor la ak jigéen mën nañ leen a boole wala déet waaw maanaam ñaari nit bu ñu faatoo maanaam man nañ leen a boole gën nag julli boo xam ñaar ñu góor la wala ñaar ñu jigéen wala mbooloo lañu moom ci mën a doon rek maanaam man lañu leen boole ak julli su leen di boole nag ak julli bu dee ñaar la comme ni mu ko waxee muy góor ak jigéen dañuy teg góor ga maanaam ci kanam imam bi maanaam kiy jiite julli gi mooy sës ci moom bu ko defee néew bu jigéen ba ñu teg ko ca penkub beneen néew bu góor boobu manam daal bu dee ni ñaar la muy góor ak jigéen góor gi mooy féete ak imaam bi euh, jigéen gi itam daal féete penku noonu lañ leen war a tëralee bu fekkee ni dañ leen di boole di leen jullee bu dee ay góor la itam maanaam mbooloo mu góor la ak mbooloo mu jigéen itam dañuy jël mbooloo mu góor ma sësale ko ci imaam ji ba ba ñu jeex ñu doog a jël jigéen ña teg leen ci seen penku ñoom itam ba ñu jeex noonu daal mooy li nga xam ne moom lañ leen war a jullee bu fekkee ne dañu di ñaar wala ñu di mbooloo bu fekkee ni tamit ay góor kese la doon mbooloo mu bari eh, ne nañu dañuy xool ki nga xam ne kii yaakaar nañu ne moo gën ñu ji ñu teg ko ci mu mu mu féete ak imaam ji ñu doog a yeneen néew ya ca des waaw kon daal bu dee ci wàllu niñ leen di jullee moom noonu mooy ni nga xam ne ni noonu la ñu jullee laaj bi ci toppaat itam mu dem mu nekk ci wàllu jullee googu ba tey mooy eh, nu ñu leen di ñaanale waaw comme loolu moo ko waxee rek ñaan gi moom dafa nekk baati araab yoo xam ne yii lay soppeeku lool maanaam ñi nga xam ne nii bu fekkee ni kenn ku góor la booy jàng ñaan gi du bokk ak bu doon ni kenn ku jigéen la waaye tamit bu dee ñaar góor la ni ngay jànge ñaan du bokk ak bu doon ni yu jigéen la nga di leen ko ñaanal waaye tamit bu dee mbooloo mu góor la ñaan gi ni ñu koy jànge du bokk ak eh, ni nga xam ne ni bu dee mbooloo mu jigéen noonu lañ koy jànge waaw moom ñaan gi moom Eh, eh, xawuta yomb dara ci ku jàngut arab waaw rek da ngay jàng arab bi waaye tamit nga jàng grammaire arab boobu ba baat yooyu nga xam ne yii néew bu mu ci mën a doon maanaam day soppeeku ci ni ñu koy waxee su boobaa maanaam nga mën koo soppi comme loolu mu ko wax rek boo jàngee grammaire bi nag muy naxu bi muy sarfu bi noonu bari soppeekoo bu fekkee ni moom mokkal nga ñaan bu jëkk gi rek yeneen yi ci des yépp yow su boobaa bu dee euh, ku jigéen la di nga mën a soppi baat yi bu dee ñaar ñu góor la di nga mën a soppi baat yi bu dee mbooloo mu góor la di nga mën a soppi baat yi bu dee mbooloo mu jigéen it di nga mën a soppi baat yi waaye nag euh, sarfu boobu muy grammaire euh, arab boobu boo ko xamut wax dëgg yàlla ngir nga mën a soppi ñaan ngi xanaa nga xool fuñ ko bindi rek nga mokkal ko ba ku ci ne nga xam nañu koy ñaane rek maanaam su boobaa mooy tax nga man koo xàjjale ndax booy xool euh, li ci gën gàtt ñu naan maanaam ku mënul ñaan gi da ngay wax allahumma xfir lahu warhamhu loolu sax boo mënul sarf boobu euh, bu néew ya nekkee ñu bari wala ñaar ak wala yu jigéen ak yooyu doo ko mën a xàjjale ndax allahumma xfir lahu warhamhu genn góor lañu koy wax bu dee néew ba góor la allahumma xfir laha warhamha bu dee néew ba gën nag jigéen la bu dee ñaar ñu góor la nag wala ñaar ñu jigéen nga ne allahumma xfir lahuma warhamhuma bu dee mbooloo ma góor la nga ne allahumma xfir lahum warhamhum bu dee mbooloo mu jigéen nga ne allahumma xfir lahunna warhamhunna moom bu dee mbooloo mu góor ak mu jigéen ñoo ko bokk rek loolu lañ naan ñi ko mënut maanaam ñi mënut ñaan gi moom lañuy wax tax gis nga soppeeku gi ci am su fekkee ni jàngoo grammaire bi ngir nga soppi ko day xaw a jafe ci ñaan gi muy ñaan gi xam ne gi moom la jàng ci téere fiq yi te mu nekk ñaan gi ci gën a gàtt mooy gii mooy booy boo bu ñu tëral néew bi ba defar sàppe yi nga wax euh, allahu akbar euh, yëkkati say loxo maanaam julli gi maanaam ñeenti kabar lay doon yoo xam ne yii euh, amut rukoo amut sujjóot dañuy taxaw rek kabar kabar yi kabar boo kabar rek nga daal di njaan nga ñaan gi may bëgg a wax nii mooy booy kabari da ngay wax bismillahi alhamdulillahi allazi amaata wa ahyaa walhamdulillahi allazi yuhyi almawta lahu alazamatu walkibriyaau walmulku walqudratu walsanaau wa huwa ala kulli shay'in qadirun allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman daa di wax ne allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika kaana yashhadu an laa ilaha illa anta waxdaka la sharika laka wa anna seydina muhammadan sallallahu alayhi wa sallama abduka wa rasuluka wa anta aalamu bihi allahumma in kaana muxsinan fa zid fi ixsaanihi wa in kaana musii'an fa tajaawaz an sayyi'atihi allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna baadahu lii mooy ñaan gi ne moo gën a gàtt ci ñaanal am néew buñ koy jullee te baat yi may wax nii nii ma ko doon wax nii bu dee kenn ku góor maanaam nga koy waxe noonu lii mooy ñaan ak bu dee ni benn néew ba kenn ku góor la noonu lañu koy waxe léegi loolu moom ngay wax ci ginnaaw ñetti kabar yi nga xam ne moo jiitu maanaam ñetti kàbbar yi jëkk saa boo waxee allahu akbar rek ñaan googu moom ngay jàng soo demee ba kàbbar kàbbar bu mujj woon nag te mooy ñeenteelu kàbbar ba boo kàbbaree da ngay wax allahumma xfir li xayina wa mayitina wa xaadirina wa raibina wa saxirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa lil muslimi wa liman sabaxana bil imaani wa lil muslimina wal muslimaati al minhum wal amwaat allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al imaani wa minna fa tawaffahu ala al bi rahmatika ya arhamar rahimina kon loolu mooy boo kabbaree ñeenteelu kabbar ba eh, loolu ngay wax bu dee ni e, ñaar lañu wala boog bu dee ni kenn ku jigéen la dangay ngay ca ba nga waxee allahu akbar alhamdulillahi allazi amaata wa ahyaa ba foofu àgg ni ma ko waxee ci bu njëkk bi nga waxaat allahumma salli ala muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman bu dee ni jigéen ngay jullee nga daal di tàmbaliwaat ne allahumma innaha amatuka wamnu wamnatu abdika wamnatu amatika kaanat tashhadu an laa ilaha illa anta wahdaka laa sharika laka wa anna sayyidina muhammadan sallallahu alayhi wa sallama wa rasuluka wa anta aalamu biha allahumma in kaanat muxsinatan zid fi ixsaaniha wa in kaanat musiatan fatajaawaz an sayiaatiha allahumma la taxrimna ajraha wala taftinna baadaha lii bu dee jigéen la gën ak jigéen baat yi ngay wax ginnaaw boo kabaree Euh, kàbbaru ñett ñetti kàbbar yu jëkk yi boo ci kàbbareel lii ngay wax su ko defee it euh, ñaan gi ci mujjan ci kàbbar bu mujj bi muy mooy lee ma mujjën wax ca euh, bu jëkk ba mooy allahumma xfir li xayina wa mayitina wa xaadina ba ñaan googu àgg moom itam bu dee mbooloo mu góor la nga waxaat allahu akbar bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allazi amaata wa ahyaa ba ba mu àgg moom itam nga julliwaat ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama da ngay bu dee ni e, ñaar ñu góor lañu dangay wax allahumma innahuma abdaaka wabna abdayka wabna amatayka kaana yashhadaani an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna sayyidana muhammadan sallallahu taala alayhi wa sallama abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihima allahumma in kaana muhsinayni fa zid fi ihsanihima wa in kaana musii'ayni fa tajaawaz an sayyi'aatihima allahumma laa taxrimnaa ajrahumaa wala taftinnaa baadahumaa loolu moom ngay wax ci ñetti kabar yu jëkk yi ba mu jeex nga ñeenteelu kabar ba nga wax ca la nga waxan ginnaaw bu ñaan googu àggee ba bi nga yemee foofu noonu moom itam bu dee ñaar ñu góor loolu ngay wax bu ni dañoo doon mbooloo mu góor nga waxaat allahu akbar alhamdulillahi li si amaata wa ahya ba ba jeex nga julli ci yonente bi daal ne allahumma innahum abiduka wa abnaau abidika wa abnaau imaika kaanu yashhaduuna an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna sayyidina muhammadan sallallahu taala alayhi wa sallam abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihim allahumma in kaanu muhsiniina fa zid fi ihsaanihim wa in kaanu musii'iina fa tajaawaz an sayyi'aatihim allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna ba'dahum loolu it moom ngay wax Euh, ci ginnaaw ñetti kaabar yu jëkk yi bu ci ne bu jeexee nga daal di wax euh, la nga waxam ca euh, mujjantal ak ñaan gi muy ñeenteelu kabar gi ñaan nga nga gisee ñaan moom genn gi la du soppeeku saa boo jàngee ñaan gi rek ñaan koo nga jël daal di koy mujj ci sa ñeenteelu rakka bu ko defee nag ñaan gu mujj ko ci ñeenti rakka bu dee góor ñi la danga naan allahumma laa tahrimna ajrahum eh, wala taftinna baadahum allahumma laa tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum daa di wax allahumma axfir li xayina wa maytina ba mu jeex su dee mbooloo mu jigéen la nga waxaat eh, alhamdulillahi alhamdulilahi lazi amata wa ahya ba ñaan googu jeex nga julli ci yonente bi daal eh, allahumma innahunna imaa'uka wa banaatu abidika wa banaatu imaa'ika kunna yashhadna an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna sayyidana muhammadan sallallahu taala alayhi wa sallam wa rasuluka wa anta a'lamu bihinna allahumma in kunna muxsinaatin fa zid fi ixsaanihinna wa in kunna musiiaatin fa tajaawaz an sayiaatihinna allahumma laa taxrimnaa ajrahunna wala taftinnaa baadahunna loolu moom ngay wax moom itam bu dee ay jigéen la bu bu bu àggee ci kabar ba boo kabare kabar bu ñeenteel ba daal waxaat jàngaat maanaam bu dee nii ci mujjantal ak ñaan ko tax mën a allahumma laa taxrimna ajrahunna wala taftina baadahunna léegi mujjantal ak ñaan nga mu ñeenteelu kabar ga nga wax ca la nga waxan ca ñaan gu jëkk ga moom ñoo ko bokkule loola du soppe ku kon bu dee ni julli gi daal gis nga ko bu dee kenn ku góor bu dee kenn ku jigéen bu dee ñaar ñu góor bu dee nii Eh, mbooloo mu góor bu dee mbooloo mu jigéen bu fekkee ni nag ñaar ñu jigéen la danga naan eh, ginnaaw ba nga waxee alhamdulillahi amaata wa ahya ba mu nga julli ci yonente bi muy ñaar ñu jigéen lañu danga naan allahumma innahuma amataaka wamnataa abdayka wamnataa amatayka kaanataa tashhadaani an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta aalamu bihima allahumma in kaanataa muxsinatayni fa zid fi ixsaanihima wa in kaanataa musiatayni fa tajaawaz an sayi'aatihima allahumma laa taxrimnaa ajrahuma wala taftinnaa baadahuma gis nga ko bu dee ñaan yu jigéen it loolu ngay wax ginnaaw ñetti kab maanaam kabar bu nekk ci ñetti kabar yu jëkk yo soo kabare kabar bu ñeenteel bi waxaat ñaan ngam la waxoon ca julli gu jëkk ga bam dee génn góor bu dee gone gu góor lañuy jullee ba nga waxee allah akbar alhamdulillahi lisi amaata wa ahyaa walhamdulillahi lazi yuhyil mawta ba ñaan googu jeex nga julli ci yenn tabi danga naan allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika anta xalaqtahu wa razaqtahu wa anta amattahu wa anta tuhyihi allahumma allahumma faj'alhu li walidayhi salafan wa zuxran wa faratan wa thaqil bihi mawazinahum wa a'zim wa a'zim bihi ujurahum wala tahrimna wa iyahum ajrahu wala taftinna wa iyahum baadahu allahumma alxiqhu bisaalixi salafi lmuminina fi kafaalati ibrahima wa aafihi min fitnati alxabri wa min azabi jahannama loolu ngay wax bu dee xale bu góor la eh, doon kenn boo waxee lool nag ba noppi ci ñetti ginnaaw ñetti kabar yu jëkk yo nga ne allahuma xfir li aslaafina wa afratina wa liman sabaxana bil imaani allahuma man axyaytahu minna fa axyihi ala al imaani wa man tawafaytahu minna fa tawafahu ala al islaam waxfir lil muslimina wal muslimaati al axyaai minhum wal am waati bu dee ni eh, ñaar ñu góor lañu nga ne maanaam ñu ngi ci julleeg bu dee gone la allahumma innahuma abdaka wabna abdayka wabna amatayka anta xalaqtahuma wa razaqtahuma wa anta amattahuma wa anta tuxyihima allahumma faj'alhuma li walidayhima salafan wa zuxran wa faratan wa thaqil bihima mawazinahum wa aazim bihima ujurahum wala taxrimna wa iyaahum ajrahuma wala taftinna wa iyaahum baadahuma allahumma alxiqhuma bisaalixi salafi lmuminina fi kafaalati ibrahima wa aafihima min fitnati alxabri wa min azaabi jahannama lii ngay wax bu dee ni ñaar ñu ñaari gone lañu yu góor bu dee ni ñaari gone yu góor lañu doon bu dee ni néew ya ay gone lañu te doon mbooloo mu góor nga waxaat allahu akbar bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lazi amaata wa ahyaa walhamdulilahi lazi yuhyil mawta ba mu jeex nga julli ci yonente bi daa waxaat ne allahumma innahum abiduka wa abnaau abidika wa abnaau imaika anta xalaqtahum wa razaqtahum wa anta amattahum wa anta tuxyihim allahumma faj'alhum liwaalidihim salafan wa zuxran wa faratan wa thaqil bihim mawazinahum wa a'zim bihim ujurahum wala taxrimna wa iyahum ajrahum wala taftinna wa iyahum baadahum allahumma alxiqhum bi saalixi salafil muminina fi kafaanati ibrahima wa aafihim min fitnati alxabri wa min adaabi jahannama loolay wax ci ginnaaw kabar bu ne ca ñetti kabar yu jëkk ya soo paree daal di jëlaat ñaan ngam la waxam ci bi duggee ci jullee gone nga ca mujj noonee ci ginnaaw ñeenteelu kabar bi bu fekkee ni bu dee ni genn gone la gu jigéen nga ne allahu akbar alhamdulillahi allazi amaata wa ahya bam jeex nga julli ci yonente bi daal di ne allahumma innaha amatuka wabnatu abdika wabnatu amatika anta xalaqtaha wa razaqtaha wa anta amattaha wa anta tuxyiha allahumma fajal fajalha li walidayha salafan wa zuxran wa faratan wa thaqil biha mawazinahum wa a'zim biha ujurahum wala taxrimna wa iyahum ajraha wala taftinna wa iyahum ba'daha allahumma alxiqha bi saalixi salafi almuminina fi kafanati ibrahima wa aafiha min fitnati alqabri wa min adaabi jahannama bu dee ni ñaanu jigéen lañu ñoo ngi ci bu ay gone lañu nga daal di ne alhamdulillahi lisi wa ahya bam jeex nga allahumma innahuma amataaka wabnata abdayka wabnata amatayka anta xalaqtahuma wa razaqtahuma wa anta amattahuma wa anta tuhyihima allahumma faj'alhuma li walidihima salafan wa zuxran wa faratan wa faqid bihima mawazinahum wa a'zim bihima ujurahum wala taxrimna wa iyahum ajrahuma wala taftina wa iyahum baadahuma allahuma alxeqhuma bi saalixi salafi lmuminina fi kafalati ibrahima wa aafihima min fitnati alxabri wa min azabi jahannama bu dee ni bu dee ni dañ gone ay mbooloo yu jigéen lañu nga ne alhamdulillahi allazi amata wa axyaa ba mu jeex nga ne allahumma innahunna imaa'uka wa banaatu abidika wa banaatu imaa'ika anta xalaqtahunna wa razaqtahunna wa anta amattahunna wa anta tuxiihinna allahumma faj'alhunna liwaalidiihinna salafan wa zuxran wa faratan wa thaqil bihinna mawazinahum wa a'zim bihinna ujurahum wala taxrimna wa iyahum ujurahum wala taftinna wa iyahum ba'dahunna baadahunna allahuma fa alxaqhunna bi saalixi salaafi lmuminina fi kafaalati ibrahim wa min fitnati alxabri wa min azabi jahannama lii daal mooy li aju ci wàllu jullee ak néew am naa moom day aju lool nga mën a jàng arab waaye tamit nga xam grammaire u bi xam ay baat ni muy soppeekoo ndax langue arabe moom dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne bii daanaka rek day suppeeku lu bare bare nga xam ne ni ngay waxee bu dee kenn bu dee kenn ku góor bu dee kenn ku jigéen bu dee ñaar ñu góor bu dee ñaar ñu jigéen bu dee mbooloo góor bu dee mbooloo mu jigéen bu dee ñi nga jàkkaar lool bu dee ni ñi ngay wax jàkkaar la mooy ñi ngay waxal waaw bu dee ni ñu fi néewt la yépp daal dafa xaw a xóot lool yaatu lool nga xam ne day aaju njàng mu yaatu dal moom nga dog man eh, saa buñ la tegaleem néew rek maanaam boo xasee xam ñaan gu jëkk gi rek eh, eh, la ca toppal muy néewee ca des moo xam góor la walla jigéen la ñaar ñu góor la walla ñaar jigéen mbooloo mu góor wala mbooloo mu jigéen nga xam nan ngay sottee baat yi ngir mu doon seen ak ñaan kon xam naa mi ngi doon waxit bu ñu mën a leere ci wàllu xoqal bu kaaw muy téeréb sëriñ Bàmba boobu solo boobu waaye xam naa dañ koy jéggal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ba beneen fatwa ñëw incha allahu euh, suñ ci mënee xaj rek maanaam ñu jàllale ci dara ci xoqal bu kaaw boobu incha allahu yàlla yàlla doole defal tawfeex bi jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam da da yo da